exclusive at coolivetv.com. Mm. tey dama sonn bàyyi la nga nelaw sama baat bu lay bégloo dinaa la wayal guddi gi yëpp naa nga wax say ni man duma bàyyi laay daw ci sa yaram duma taxaw mel ni danga ne déggu ci àndul xoolu ci meer faale wuñ man foog naa ni gaañu man la li may def pour ñun ko xam jox naa la confiance na boo may doo def semblant soxlaawuma dund leneen jox naa la sama xol ak sama temps may sa roi yaay sama ren sama ren ren def ma roi doon sama reen sama reen sama reen mbëggeel dafa compliqué mais ci la yombee ni nga mel bu ko mësa soppi man réccu ma ni ma la tànnee waxoon naa sa papa dinaa toppatoo doomam yee léegi yaa ngi sama famille nekk sama miir ami ñi lay laaj dañu bëgg a xam bu ñu laajaatee dañu la ñee li ñuy dund mbëggeel dëgg fii la feeñee na nga xam jox naa la confiance na boo muy reetaan doo def semblant soxlaawuma dund leneen jox naa la sama xol ak sama temps may sa roi yaay sama ren sama ren def ma roi doon sama ren sama ren sama ma la xam lan lay wax dañ ma yàgg di briser yaa ko seet wax ma fan nga nekkoon mi amoor ne diggante bi du de ne ko maak yow jusqu'à la mort bu ma la xoolee du ma xam lan lay wax ma yàgg di brisé sama xol yaa ko tabax yow lay seet wax ma fan nga nekkoon mi amoor ku ne diggante bi du de négoma ak yow jusqu'à la mort nanga ko xam jox naa la confiance de boo muy reetaan doo def semblant soxlaawu ma dund leneen jox naa la sama ak sama temps Download more music at coolifetv.com.